internationale. C'est l'info internationale. abonné leen ci suñu YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor ci réew mi ak ci bitim réew. SeneInfo.net internet yi ñuy bàyyi xel ci seneinfo.net ak seneinfo international ñu ngi leen di nuyu fas yéene leen defal tënkub xibaar tey samedi di 20 ñu tàmbale kook xibaaru biir réew mi. njiitu réew mi Macky Sall bésub tey jii dina dalal quatre-vingt-deux euh, élus yi nga xam ne kon euh, ñooñu la ñu fal ci coalition Benno Bokk Yaakaar bi dañu war a dem fële ci assemblée nationale bu ñu sukkandikoo nag ci journal réew mi daje boobu dinañ ca waxtaan ay poñ yu am solo bokk na ca ki nga xam ne moom moo war a doon euh, président bu assemblée nationale bi nga xam ne kon moom la ñu war a taxawal. Ousmane Sonko démb ci ajuma ji demoon na eh, jaale eh, famille ndem si yàlla si François Mancabou moom nag eh, gannaaw ba mu fa demee daal nee na fekk na fa ñoo xam ne nii ñu gëm leñ ñoo xam ne daal fi mu nekk nii taxaw nañ ngir daal xeex ba sax ñi nga ñi nga xam ne ñoom lañ jàpp ne kon ñoo tax ba seen doom jooju faatu ñu mën leen a identifier te teg leen loxo euh, li nga xam ne tam mooy yoon def liggéey bi ci war Ira Ndaw wér na ci feebar bi nga xam ne kon euh, feebaroon na ko boobu ba léegi bu ñu sukkandikoo nag ci ñoo xam ne ay jegeñaaleem lañ nee nañ njiitu réew mi Macky Sall moo ko yóbbu fële ca France moom Iran ak soxnaam ngir Iran euh, mën a faju ci ab video boo xam ne nag euh, bésub tey bi euh, mu ngi daw ci réseau sociaux yi dinañ ca seen sax kii di Iran Ndao ak yooyu leen nit mu mel ni nag kon Iran Ndao fi mu nekk nii sax wér googu ñuy wax def na ko ndax ci vidéo ba dinañ ko seen mu ngay wax ñoom ba sax di ree xibaaru Afrique dañ koy tàmbaleeg Angola foofa nag néewu ka fa nekkoon président di Dos Santos te mu faatoo woon fële ca Espagne ci weer wii ñu génn ñu ne nag euh, dina ñëw bésu bu tey bi euh, foofale ca Angola ñu ngi ko fay xaarandi kon euh, néew Dos Santos nekkoon njiit bu Angola mu war a yegg si bésub tey bi foofale ca capital ba di Luanda réewum Soomali nag ab jéye moo fa am muy ñoo ñuy woowee groupe Shabab ñoom nag ñoo fa attaqué ab hôtel Euh, bañ ko attaqué nag euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy takk der yi di jàmmaarloog ñoom ci biir loolu nag euh, lu toll ci juróom benn civil ñàkk ca seen bakkan xibaaru bitim réew benn ponk lay doon muy ca Turquie foofu nag ab accident bu métti moo fa am ba sax ñu ne lu toll ci quinze personnes ñàkk ci seen bakkan vingt deux am ca ay blessé ñu ne nag accident bi nag euh, mu ngi amee ci diggante fu ñuy wax euh, Gaziantep ak euh, Nizib accident ba nag ñu ne ay autocar ak ay équipe de secours ak ay ambulance ñoom daal ñoo bokkoon ci boobule accident dañ koy jeexal xibaar sport entreneur bu équipe nationale bu basket bu Sénégal di Desagana Diop moom nag publier na démb ci ajuma ji liste bi nga xam ne moom mooy list douze joueurs yi nga xam ne kon euh, moom la tànn ñu war a euh, kon euh, jongante li nga xam ne moom mooy éliminatoire yu coupe du monde basket bu góor yi bu deux mille vingt trois fële ca Tunisie ñu ne match yooyu nag dinañ ko joué le vingt six jàpp le vingt huit août bi ñu nekk lii la ñu indi tey ci ay xibaar dafa seen teewlu dañ jox daje ëllëg jaa ngeen